ba nga déggu ne mënuloo sa yaay di la defal ba nga mën ba nga déggu ne yow xamuloo sa yaay di la xamal ba nga xam soo màggi ko sonal dina ñaawe soo màggi di ko jooyloo dina ñaawe am am man mënul tax man mi ba ma fàtti suma yaay man man munul tax waaw ma ma bàyyi man suma yaay wuy faal bi yàlla faale yaayi booy faale na laay. salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum mbokk internet yu ñuy seetaan di am mbégte ak kontaante comme ni ñu koy defee saa ne ci seen émission conseil art conseil art nag tey dañoo doxantu si fi nga xam ne mooy Pikine daal di seet ci ndaanaan bu mag boo xam ne kenn dootu ko présenté ci musique sénégalaise ki nga xam ne mooy Mame Cheikh di rakk ci ndem ci yàlla ndongolo Mame Cheikh ñu lay nuyu. waaw maa ngi leen di fay di leen siyaare di leen jox seen wàccuwaay di nuyu waa àdduna bépp ah. rawatina waa Sénégal ak euh, Pikine gi ma dëkk di ñaan ni yàlla na jàmm sax si réew mi sax fépp si àdduna bi si barkeb Seydina Mohamed. amin amin voilà tey nag balaa ñuy commencer émission bi ndaxte semaine bi dañ siy ànd ak tiis ak nakar ñu perte nga xam ne une légende de la musique sénégalaise muy Papa Thione nga xam ne xale yeeg mag yeeg ndaw yi ñëpp ko bëgg ñu koy jaale famem di ko ñaanal yàlla na ko yàlla xaaree àjjana de suuf sedd ci kawam maam Cheikh. xanaa di def lu ànd ak tiis bi ñëpp rek comme ni mu dalee seen kaw ndax ku ne xam naa ni ma mel ak Wally xam nga maa muy sama lépp jàppee ma nu ne jàppalee ma nu ne euh, kon lii bu dalee si kawam mën naa ne sama kaw la dal ndax euh, xam naa ni lu metti dal na ko ndax dal na ma ñàkk waajur dafa metti trop te it bi ma ñàkkee samay waajur gis naa ni ma taxawoo ni mu ànd man tiis bi ak naqar bi kon duma def lu dul moom ba mu jeex ndax euh, tamit ku ku nit ñi war ànd ak moom naqar bii la ak tiis bi ndax nga yëg ko nga ñàkk koo yëg kenn koo gis rek waale dugg na sa famille am lu fa def lu tax tey jii nii nga war a ànd ak moom tiis bi waaw Sénégal gépp laa wax bi waaw ndax jàppale na nit fu ne nit nu ne comprendre tiis bi bu dalee si kaw mën naa ni senegal gépp la dal seen kaw asuma la nag mu doon Papa Thione di référence si ñëpp si ndaw ñeeg mag ñeeg way téere it bàyyi ko fi waaw li mu woy lépp téere la li mu lépp a yeete lépp a digle kon dañ koy ñaanal rek yàlla na suuf si xaw kawam si barkeb Seydina Mohamed mhm. voilà comme ni mu ko waxee rek Papa Thione moom Papa Thione sénégalais yëpp la ñu koy jàll képp kuy sénégalais voilà léegi nag euh, maam Cheikh dañuy daal di jublu ci kii maam Cheikh kan mooy maam Cheikh. maam Cheikh benn tu tànk la rek ku dëkk Pikine juddoo fi yoroo fi màggee euh, juddu fekk magam di way ndongo la wax nga ko léegi mu doon loo xam ni nag lu mu donn la si ay maamam di ko def ah, ba yàlla def li gën ah yat bi dal nu rek ñu nangu ko jël mbir mi waaw fas yéene koo doxal si kàttanu yàlla hmm, koo koy maam Cheikh Ah, waaw comme ni ngeen ko déggee rek mam Cheikh euh, dégg naa ñu ne Touba nga nekkoon nga daal di ñëw pikin mën nañoo xam euh, lan moo la dugal exact ci milieu musique bi. waaw milieu musique bi mooy comme ni ma rek euh, man dëgg la Touba laa nekkoon sama papa doon jàng daara après si laa ñibbi waat fii Dakar mais fi laa juddoo fi laa yaroo après laa ñibbi si fekk sama mag di dundu aar. ba yàlla def li gën euh, tamit mooy comme ni ma la expliqué rek mu nekk loo xam ni tamit dogal la si man ndax doonul woon lu ma opté bi muy dund xalaatu woon sax ay affaire way wala dinaa way léegi mu génnee àdduna nag si la ma ko nit ñi proposé xam ne lu war a mën a nekk la ah après si laa si dugg nag jël relève bi di way koi macha mm-hmm. allah te yaa si bay sa waar bu baax a baax léegi li nga nekkoon daara. tëp tëp euh, ñëw daal di nekk ci musique bi te mbaa amoo si woon ay gàllankoor ba xam ba nga ci bëggee dugg say parents teewuñ la ci vu ni sa mag nem si yàlla si yàlla na ko yàlla yërëm te suuf sedd ci kawam jotoon na ci am ay tolof tolof te ku nekk xam na ni aar bi dafa metti waaw non dëgg la ndongo loolu muy dugg si waaye amoon na si ay tolof tolof ngir boobu ay waajuram di tax ñu tere ko ko mooy tolloon na ay jamono yu ndongo di way woy defar na nit yàq na nit nit dugg na ci defaru nit dugg na ci yàqu looloo taxoon waa waajuram doon ko bañal loolu ndax bëggul doomam yàqu waaw léegi nag après la suite ci la xam ni kii kat bëgg na lii te ambition la te taxul mu bon ci la ko ci ñaanal mu mu mu mu dugg si ba mel si ni mel ah man tamit ma ma ma déggoo seek moom ndax sama sama xarit la woon ni mu déggoo woon ak man sax déggoo woon ak noonu ndongoloo ndax daanaka si keppaaram laa yoroo laa defee lépp mu nanguloon ma lépp man sam li mu doon bañ suñu biir kër sax man maa ko fa doon def waaw sama famille may déglu ñoo ngi may seetaan xam nañ li wax bu baax ay watu black nii sax sam papa daka daan bañ man dama daan def dabalaa dugg si biir kër gi mu accepte kon am na lu ma cëraloon sama diggante ma moom bëggee woon ma noonu ba tax na way mu si duggee tamit euh, maam kiiwu ko quoi am na benn jour benn anniversaire Ndongo Lo ndeysaan ñuy def benn interview TFM du ma ko fàtte mukk bi ñu ko enregistré ba koy teg maa moom ñoo toogandoo di ko seetaan muy ñuy seetaan émission bi ba affaire bi ba ma ba ñëw ba sama parti ñëw mu may muy xool télé bi di ma xool naan ma kii kan la nii ma ne ko kii de xaw ma ko mu ree après si la ree ni ma xamoo ko xamoo kii ma ne ko déedéet comme que yow xamoo ko kay man xaw ma ko man ma yaa am fi dëgg dëgg dëgg nag xam nga expliqué ma noonu après ñu wax ñu mu jàll ndax sama xarit woon waaw après nag si ne ko lii moom dama si appuyé wu dama koy def waaye mu ne ma yow loo si loo mënti ne sama xel dina dal ndax mu soo dem ndakaar ñëw Touba yàqu changé comme li xew si jamono bi mu nga xam ni nit mën na la détourner lu bari te loolu complexe moo siy dugal nit mais man na nga fexe ba loo mën a def si àdduna bul bënn sa nopp bul lettu waaw bul naan sàngara bu def nag su dul noonu mais man loo mën a def nag baax na ma xam ni jàjj na ma te nit moom lool lool rek la waajur war la ko doomam lijjanti ba fu mu mën a ne lu yàqu fi mu ne mu ngi nii gisatuma leen gisatuma koo xam ne nii mën na ma digal wala mu tere ma si maanaam ëpp ma kàttan di ma tere yéen nii amatul mais teewul ma jombalal lu bon waaw damay baax ba fekki leen. Mhm. waaw dégg nañ kàddu yi léegi maam Cheikh euh, gis nañ aar bi neex na métti na ba xam yow aar bi yaa ngi siy gis sa bopp bu baax a baax jamono ji ñu toll ak euh, mbas mi seen activité yëpp presque yëpp arrêté boobu ba léegi ba xam yaa ngi ci gis sa bopp 100 pour 100. waa aar moom euh, waykat euh, du man kase bari na samay naw la yoo xam ne ñu ngi tëkk bi di waay gisuñu seen bopp ndax euh, waykat bi Ismaïla Lô dafa ne kuy woddoo làmmiñ boo noppee rafle te muy lu wér ñun wayay suñu métier xëyunu gontunu liggéeyunu wala boog ñu ko siy def ñu néew la way la ñuy xëy di ko def ba jant bi so kon su taxawee dina am na mu demee waaye tamit yàlla moom moo yor nit yàlla moo yor jaamam boobu ba léegi affaire yi taxaw na waaye teewul ñu ngi sant yàlla li ñu war a def ñu ngi koy def li ñu war a nekk ñu ngi si ñu ñu war a dimbali tamit ñu ngi ñuy dimbali nga xam na ni metti na tey ñu ngi taxaw comme ni ñu doon taxawoo waaw ndax defuñu mu mu neex ñu taxaw mu naqari ñu dem non non ndax yàlla bu la dimbalee nga nekk benn lead vocal di way yàlla dalay booleek ay nit yoo xam ni dañ lay bëgg rek te yàlla tax bëgg ma am ñoo xam tamit bëgg ma ngir ndongoloo di ma jàppale tuwaay bi dara ndongoloo moo tax ñu may woowee fu ne di ma jàppale di ma dimbale di ma taxaw loolu tamit maa ngi si sant yàlla di ko sante tamit ndongoloo ndax moom moo tax. Hmm. Ah, d'accord léegi yan rapport nga am euh, ak euh, sa moroomu jeune musicien yi. waaw am ak ñoom ñoom jàmm rek waaw ñoom ñëpp jàmm laa sekk ñoom ba xalaat nga nga taxaw sekk ak ñoom kii def clip comme jeunes yi ñoom genre El Hadj Keita Tarba Mbaye ñoom ñëpp. ñoom damay damay damay ñoom si si milieu art ñuy way jox ma ma way euh, ku si mel ni Xaadim mbaay Tarba moom sama xarit la moom sax maagal Kazu Rajab day ñëw suñu kër Touba moom moom yàgg na moom bokk na si ñi ma njëkk àndal dem way ay simba ay kaset waaw. ak El Hadj Keita ak ñeneen ak ñëpp ku ma dajeeg si yow sa bërëbu wayukaay ngay way soo ma seenee danga may jox micro ma way ba ba mu neex ma mm, nga teral ma ma wàcc dem ñibbi. Mm. ban relation nga am uh, ak ki nga xam ne mooy Wally Balago Seck parce que euh, déggoon nañu fan yee passé nekkatoo woon ci moom ci ay rumeurs yu ñu gis ci réseaux sociaux yi vu que ko waxee rek sànq ñu dégg ni nekkatoo leen bon. non Wally Ballago Seck ma maa ngi moom danoo dem ba affaire way booleetuñu Wally famille moo nu boole bi may téye famille affaire mbiru famille la ma téye du way daf maa téye ngir gisatuma sama mag Ndongo Lo comme waroon ma taxaw soutenir ma yàlla dimbali na ko à chaque fois damay wax ni man ma nekk si mbiru Wally Seck teew la ay mbiram di dox ma ñàkk faa nekk ma ngay dox bi ma fay ñëw dama fekk muy dox comprendre nga. te dafa am loo xam ne ni maanaam duñ ko dund te ba àdduna di tukki loolu du dañ ndax euh, sam daf ma doon wax ne as gor ku ko teral moo ko tëral ku ko toroxal moo ko toxal te waali jamono bi nga xamee ba léegi lu baax lay sekk man kanam gu baax la may wan musuma changel imaasam barki Seydina Muhammad bu la noonu xewoon tamit noonu laa noonu laa ko defee barki Dembo Ndiaye mi gisee Gambie dem naa li mu warloo man def na ko looloo si am solo comprendre nga su ma ko bëggee gis dama koy gis waaw su ko bëggee jot dama koy jot kon loolu amul amul problème bu si am waaw sénégalais yi nag moom xam nga rek yaa ma gën a xam am na loo xam ne nii buñ ko gisee maam dañ koy jàppee beneen fànn woo xam ni fekk demeewu fa noonu tamit gisoo ni c'est normal que euh, ñu laaj la ko parce que ni nga nekkee woon ci moom dëgg la yéen a ngi ànd ñu ngi leen di gis mais nga jékki saay nekkatoo fa genre mën na am benn motif boo xam ni moo tax wala. non du motif man man c'est que sama jëmmi bopp xam mooy li ma la expliquer xam nga nit di nga nekk benn instant di nga nekk en activité noonu lañ koy waxee nekk benn instant doo nekk en activité maanaam moo xam si war problème mu santé la comprendre wala bu boobaa dafa am loo xam ne nii tamit dëgg la média yi ñu mu doon gis télé yi di ma gis à chaque fois ak moom mais du gisuñu ma télé yi ak moom nii rek gisuñu ma ak moom maa ngi gisee ak moom mais boobu xëy na sama sama wér moo ma ko mayul ma nekk si tele yi genre wala may ànd ak moom si yenn concert yi mais amul lu ñu umpale moom. Mm-hmm. Ah, kon dëgg la léegi mënoo bëggoon nañ xam ñaata single ah man def naa def na trois single. ñaari sama yaay laa ko way benn bi ndongolo waaw ñaari single yi waaw ñaari sama laa ko benn bi ndongolo mais am nañu préparé instant bi nii mais yi nii moo téye lépp naa bu jeexee incha allah rek lépp lu si war a def daal nañ ko def. macha allah léegi dañoo bëggoon nga daal di ñuy ñamal tuuti pour soppe yi ak fans yi nga xam ni ñu ngi lay béggee ak ñi nga xam ne xàmmeewuñ la ñu mën la xàmmee bu baax. Hmm. waay lingeero yi wule ñaani bañ yoo jëfari ma waaw wule gaynaaga yoo yee yoo jamfarima wule ñaani bañ papa coon guddi naa yi sekk aduna jaale naa papa coon guddi naa sunu baay defal lu baax waxal lu baaxooy ngir boda doo ñu mën koo séeréy bisu keroogam waa jar naa def lu baax wutee na ku waaye jëf du suulooyi ku masa ñam dundu ñam nga dee wutee ngi nii si ñaari kër yee su si ngay sàngoo moom ngay njëgënu tawee yaayi gàncax gi sax sa kaw ba doo mën a nga xam ni yàlla mooy borom jaam ñi papa coon guddi naay waaw àdduna moo mën war war na buuru war baatoola newoon naa fi lu ma siddi dama ko gëni waaye man maam seex si ko dara dara ndax lu ma mën a metti yi àdduna ma ko teg xañ na ma ndey xañ ma baay booy xañ ma ndongolo mu yaay ma reetu barki démboo njaayi lanu xañ papa coon maa ngi koy jaale wali balla ko di ko wax na muñ te xam ni lu metti jàmbar lay dal yàlla lu mu teg doomu aadama yi xool na ba xool ni attan na ko papa coon ma fi wayoon àdduna bett na ma papa coon ma fi wayoon man jirim la sama kër baay papa coon a fi wayoon sax yi ne si biir day dunde néew xanaa ñoom dunu suureey lépp lu mu way téere la